li ci yenn kaay yi. li ci yenn kaay yi. Astou Sylla dikkati na ci yéen kaay yi waa Touba bëgg ñu Macky Sall l'observateur nañu looloo am seen Touba safawuñu Macky Sall ëpp naa de li yàqal Macky Sall ci diiwaanu Touba ci élection yi yéen kaay bi ne bokk na ci moom Macky Sall ñi tànn teg leen ca dëkk bu sell boobu baaxul ñaareel ba di ñu a liggéeyal a liggéeyal te luñu ko fa waxoon 2012 ne sëriñ si ay bari guuxal ca Touba kël ma ci leese ko mel ni ku naa gën a yàqule ca dëkk bu sell boobu di Touba moom Macky Sall ak wax jure ji nga xam ne maître Moussa Diop nekkaay bi nañu kàddoom yu ñaaw yu jubari yu dëng yooyee tax na ñu bari ñoo ngi sàkku ci Macky Sall mu dàq ko moom maître Moussa Diop yëral ma journal Source A ci xalima ak Mone Mbaye Cissé mel ni ku koy feelu gannaaw ba maître Moussa Diop yëkkatee wax ñaaw na ci dégg-dégg te dara rafetu waaye Pape Diogaye Faye moom jàpp na ne aw na yoonu gàddu ndam li journal Source A mel ni ku naa ko ndax Idrissa Seck dina ko ci bàyyi ne Idrissa Seck def na ay calculam ba gàddu

sept virgule soixante-huit pour cent kon deuxième tour mënul ñàkk ci réew mi Birahim Seck bu Forum Civil dinañu ci l'observateur foog naa ko nag jeexalee ko ak l'observateur mbir mu yéemata doy waar ma nga xewe ca quartier santé suuga ca Mbuur ubbil yéenekaay bi benn waay moo fa doon tëddee jabaru jàmbur jabaru jàmbur law jëkkër ja bett ko waaja daw bàyyi fa dàllam